maa leen di fay bégee Yves maa leen nuyu di la fay di la dalal jàmm di bégee gars yëpp tamit presse locale bi yëpp di nuyu askanu Médina yëpp di nuyu Dakar waa yëpp di nuyu sénégalais yëpp ñu seedaan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim salaamun qawlan min rabbin rahim kulama qad nara lil arbiyat fa Allahu xalifa rappeur laa mi ñu askan wi doom Médina bi noonu naafeq yi noonu sàcc yi tous ñabe muy bout budi si deug lek ak ci jamm ak salam d'accord khalifa euh dañu gis ben vidéo bo def posté ko ci réseaux sociaux yi dañ la agresser té li ci léral sax moy da nga les jeunes de bamba fall waaw yaakar na fang mom kenn ko jeex quoi du deug waaw man ñep xam nañ ni maintenant awma sens interdit fenn té sa way heure bu ma neex lay dox ak li ma wara dox du deug voilà te fu ne laay dugg si maintenant bi ak si temps bi léegi tey si tey nag lépp loo gis am na cause yàlla def na Bamba Fall moo meeting fii si rue 19 angle bi bëgg ci Demba wax publiquement ne gars yi ñu ngi koy ñaan ne ko non violence mais non violence mënul am Médina parce que boo jëlee sa dofu rappeur muy saaga nit yi di gaaral nit di sosal nit sama doom yi nii dinañ fayu te buñ fayoo mooy indi violence moo ko wax vidéo yaay fi du dëgg waaw tey say pour tàmbale rek Bamba Fall si wax boobu noonu da ngay fen ba leen ma àq mais tamit xoola mensonge mensonge la quoi est-ce que ay dégg Bamba Fall mënul sax fii si maintenant bi gaan dañu saaga duñu tuumaal duñu sosal man bu waxee loolu day fen barki Maulana Cheikh Ibrahim barki alxuraanul karim Cheikh ba musuma fay ñaar dërëm ne ma xoola waxal ma lii wala defal ma lii est-ce que ay dégg billaahi wallaahi wa tallaahi man saa yoo xoola doomu aadama sax yawuma ba dama lay fay nga waxal ma lii wala nga defal ma lii yaa ngi dégg tey si tey si loolu noonu la tuumaal na ma sosal na ma tooñ na ma du dëgg mu wëlbatiku booy yi keroog fii am na benn vidéo buy daw si Facebook bi si mairie bi maanaam ay doom maintenant ñoo doon filmer def vidéo di wane ne kat mairie bàyyi nii dañ ko jël vingt 23 janvier mairie bi sax dañ kay toj daf ko juma delloo waa vingt 25 seen jàq bi parce seen jàq bi dañ ko toj daf ko magasin est-ce que ay dégg di wax ak benn booy bu tudd Xalifa foofu

comme booy ñu dara seen koñ ñu dëkk sax man seen koñ ñoom fu ñu dëkk man dama fay fréquenté fa laay nekk presque chaque guddi waaw parce que samay xarit ak samay frère ñoo fa dëkk waa Daaru Salaam maa leen di nuyu ñoom ñëpp ñoom ñëpp xam nañ ni tey si tey Bamba faal du dara ab sàcc la sàcc bu ñàkk jom yaay ngi dégg te ñoom sax Cheikh Ba nañ àndal parce que Baye Daaru Yeex mooy loolu yaa ma gën a xam PVD rejoindre nañ si parti plus de xaw ma vingt parti rejoindre Cheikh Ba si nañ ànd yaay ngi dégg léegi tey si tey booy mandi booy dañ mandi woon fa dañ nekk si école Médine bi di tux seen i yàmba di naan seen sàngara parce que Bamba Fall loolu la leen jëndal leen ñuy mandi jëndal leen ay arme ba pare dinaan chaque mois mu dagal leen salaire mairie ay vaurien nag duñ dara wala booy du maax ñoom. yaa ngi dégg lan moo wax ne Bamba Fall moo leen mooy li ma la wax booy keroog dama leen romb ñu woo ma ma ñëw. yaa ngi dégg man ma ñëwee si man lu ma may wax ñu commencé wax naan maa ay waxu ay doo bàyyi Bamba affaire yooyu si sax. accéléré may leen distance génnee sama téléphone filmé pour preuve boo man du ma ngaaxadee yéen booy saawaay seen baay Bamba Fall sax maa gën a muus fuuf téeméeri junni yoon yaa ngi dégg man saawaay xoola je fais les pas jaar saawaay si école privée yëpp yi gën a mool fii nii yaa ngi dégg ba terminal près dem IPG dem ITECOM a dégg maa gën a gën ko xàmmee gën ko ràññee gën ko nite ëpp personnalité parce que moom lii la dëkkee xaw maintenant wala ñu ñun doom maintenant mun nañ li ngay def ay sante on comme lii rek mu ñuy fitnaal du ñu fitnaal xoxatal du jaay doole booy ñaata booy ñaata bi commencé bi ma ñëwee maintenant fi di waxu maintenant j'ai été victime de plus de trois attaques booy saa waay 19 rek en nañ ma mafia bëgg ma mais yàlla moom moo leen ëpp doole quoi yàlla yàlla sax si du ñu làq fu yàq yeggul yaa ngi dégg léegi tey say ma daaneel foofu boy ma leen may distance lépp nag pour preuve la lu ñu fàng kenn ko jeex te malheureusement Sénégal xamuñu ku tooñ ku fayu nañ xam vidéo ma def leer na nañu quoi te alerté na opinion nationale ak internationale. kilifa yëpp mais confirmé ne ñooñu ay boy Bamba Fall lañ. ay boy Bamba Fall lañ parce que preuve weesuwul yow. boy ma jakar ak ñoom. ñen yéen ay boy Bamba Fall ngeen. ñuy saaga naan li ñuy wax déglu leen bi ñoom ñoo ko wax ne li ñuy def làqatuwuñ si dara di wax di saaga ay saaga yu ñaaw commencé sànni xeer ma avancé dem seen koñ booy génn seen koñ di jël ay xeer di ko sànni sama moto yëfu sauvage yooyu yaa ngi dégg génnee ay jaasi ay gourdin di daas ay paaxa te man man kese ñoom ñu nekk plus de quinze booy seen grand yi seen grand yi suñu génnoon parce que seen grand seen grand yi ñoo génn waaw daman mooy lu ma la wax yàlla buy defar day mel ne day yàq heureusement keroog yow ma woon arme barki Mawlana Cheikh Ibrahim su ma yoroon arme instant boobu noonu nii laa ko sama gars yi ma ne leen yàlla buy defar day mel ni day yàq suma ma yoroon arme bu ma si ñëkk jege naan daf may jege di ma kii sax man saa du ma dute du ma hésité barki Bañas yaa ngi dégg tey seenax lii raam si ñag bi la jëm alerté naa te yàlla tax baa man du ma tooñ quoi mais seetu laa temps yii passé yëpp gars yi ñu ngi doon wax naan ay temps yi sa copain da nga may jaamu Bamba Fall parce que maa ngi si doon ruus maanaam sama naataangoo a bëri ak samay a ak samay mbokk ku su mel ni Pape Birahim sama xarit la sama grand frère la dafa ma ñaan ne ma xama ba Bamba Fall ko xama ma dama ko doon sax tooñ ñu ko saa de lii de yow laa siy xool quoi xam nga ma lay expliqué am naa samay mbokk yu liggéey si Bamba Fall mais du musu musu du ma sonal si détail